salam alaikum gay salam alaikum gay mangi pari ñi di doga yow pour soutenir président Macky Sall Macky mom fumu dem ñanga fa lu muy def ñanga fa lu muy waaj a dugg fa ndax ñun Macky rek lañuy top mais bu lolu jaxé mangi don nelaw sank la yew mais gay bu nu fatte ne Pape Cheikh Diallo dafa inviter sama yaay ji Viviane Pape Cheikh Diallo ku rek xamna na ko Viviane mu nek nit ku bax motax tax bu ma gisee Pape Cheikh Diallo nit diko waxal dara daf may yem billahi wallahi wa taala Pape Cheikh Diallo nit gënu ko nit ku bax la foko day ree bëri kersa lool baax bay bëgg a dee nit di ko tuumaal ak di ko sosal di ko waxal lu ñaaw man ñooñu dama yaakaar na seen xel mi ay daye ci ne lu yàlla bind ci àdduna bi Pape Cheikh Diallo ku mu gënul gënoo ko barki Serigne Babacar si ma nekk ak moom payi xam Pape Cheikh Diallo gi mu oyof xam baaxam Pape Cheikh Diallo xam yaroom ak dalam lu ko nit waxal da nga ko koo sosal ak wax wax ju ñaaw bàyyi leen wax bu bon bàyyi yàlla yonente bàyyi wax bu ñaaw leen wax bu ñaaw di ko jëmale